fi nga xamante ni mooy ci diwaanu Mbàkke ñaari xale ñoo daal di lab ci benn bassin ñoom ñaar ñooñu nag ñu nekkoon ay élèves doon jàng kenn ki ay atam tolloon ci fukki at ak ñeent keneen ki ay atam toll ci fukki at ak juróom ñoom ñaari xale yooyu nag ginnaaw bi nga xamante ni jéye ji am na ñi nga xamante ni ñoo di waa sapeur pompier daal di rek jot ci seen koor ñoom ñaar ginnaaw bi ñu leen génnewee nag daal di leen jàllale ci hôpital bu Matlaboul Fawzayni bi nga xamante ni mi ngi nekkee ci diwaanu Touba bu ñu sukkandikoo nag ci suñu naataangoo yi nga xamante ni ñoo di waa APS li ñu xam xamle mooy que ni daal ñaari xale yi kenn ki daal la dàll bi dal di dugg ci biir bassin bi ñuy dem ngir jéem ko jël jamono ji nga xamante ne nag lu ni mel am na ci la ñu rek daal di lab ci le bassin ñuy ñaan buur bi dara tawul yal na yàlla woyofal suuf ci seen kaw te yokk seen leer ci barzaq